bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi tedd yi ñu leen di nuyu te di leen ziyaar te di leen ndokkeel ci weeru koor bu bees wi di soog a dugg ci timisu tey walilahi alhamdu fii ci North America ak li ko wër yonentu sallallahu alayhi wa sallam bu weeru koor ñëwaan daf daan ndokkeel saxaaba yi ak contentement gi ci kanamam donte mosu caa jokk sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama daf daan wax ataakum chahru ramadan ataakum ramadanu sayidu shuhur fa marhaban bihi wa ahlah weeru koor ñëwal leen ataakum ramadanu weeru koor ñëwal leen ñëwal na leen sayidu shuhur sangu weer fa marhaban bihi wa ahlan ñu ngi koy dalal di ko tatagal yonent bi sallallahu daan wax ataakum chehru ramadan weeru koor dikkal na leen chehru barakatin weeru barkeel yaxshaakum allahu fihi bi rahmatihi yàlla daf cey ñëw ak yërmandeem wàcce ko ci seen kaw wa yaxuttul xataaya sippi ca bakkaar yeeg ñaawteefi wa yastajibu duaa di ci nangu ñaan yi yanzuru llahu tabaraka wa taala yanzuru llahu ila tanafusikum fiihi yàlla mi ngi ciy xool seen rawante gi ngeen ciy rawante ci def yiw subhaanahu wa taala wa yubaahi bikum malaikatahu muy puugaréwu ci yéen malaakaam yi fa aru llaha min anfusikum xayran yonentu ne waay wan leen yàlla yiw gu jógee ci seen bopp ku nekk ci ñun yaa ngi nëbbu yiw ci sa bopp génnee ko nag bu weeru koor yu jotee nga won ko yàlla subhaanahu wa taala mu ne fa inna shaqiya dëgg dëgg dëgg ku texee di man xurima rahmatullahi mooy koo xam ne xañeef na ko yërmande yàlla xadis jàng ci tabaraani lu tax na ñu gën a def vidéo bi non seulement pour ndokkeel leen mais pour leeral yenn point ndax ci suba ba léegi maa ngi jot ay message ndax dañuy woor ndax duñu woor Arabie Saoudite nee nañu gisuñ weer wi gis ngeen suñu borom subhanahu wa taala royloowut ñu Arabie Saoudite eh, suñu borom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ñu royloo yonentu bi nag dafa wax ne na ngeen woor su ngeen gisee weer wi ngeen dog su ngeen ko gisee fekkee ne am na xumma fa in xumma su fekkee yiir na yiireef na leen ko nag ba mënu leen koo gis ndax niir walla yu eh, lu eh, li ñuy tuddee niir mu ne na ngeen mottali li mu caabaan fanweeri fan Eh, gis nga eh, dañu toll ci jamono boo xam ne gis la yonent bi wax dëgg la waaye est-ce que dafa wax ne gis ak bët wala dafa wax ne gis fii ci North America dafa am benn eh, mbootaay goo xam ne moom lañ tuddee Fiqh Council of North America dëppi ay weer wane nañ ne falakiyan ci wàllu xam-xamu biddiw ak xam-xamu jaww ji Eh, ci wàllu astronomie weer wi mënee ko gis fenn le quinze mai ci east mooy ci Arabie Saoudite ak la ko wër waaye fii ci west nag danañ ko fi gis wax nañ ne un weer wi dana juddu ñaareel bi le quinze mai muy àllarbaay tey ji weer wi dina nekk ci kaw asamaan ci horizon yi about twenty six minutes after sunset dina fa nekk ñaar fukki minutes juróom benn gannaaw bu jant bi sooy ñetteel bi mooy weer wi dinañ ko gis ak horoscope tey tamit danañ ko mën a gis ci ngoonu tey gii danañ ko gis ak horoscope ak ak télescope bëgg wax danañ ko gis ak télescope benn dina nekk lu visible tamit lu ñu mën a gis ci ngoonu tey gii ci Hawaii dinañ ko mën a gis tamit ci euh, Pacifique euh, dëkk ba nu mu tuddati Pacific Polynesian eh, Islands yi yëpp dinañ ko fa eh, mën a gis mooy weer wi eh, fii lañ koy njëkk a gisee balaañ koo gis penku ñu wax ne tamit it is du du ne rek weer wi il faut ñu gis ko penku soo ko gis soowu léeg-léeg soowu lañ koy njëkk a gisee balaañ ko gis penku ñu wax ne weer wi waa penku duñ ko gis le 15 mai waaye ñun waa soowu dinañ ko gis lii depuis mars euh, mi ngi ci surtout ISNA depuis mars information bi euh, mi ngi foofu décision bi nga xam ne nag moom la ISNA di jël di euh, basé wu ci ilmul falak yi ngir gis ne weer yu feeñ ne wala weer yu feeñ wu duul ne ñoom rek la ñu ngi ko basé wu ci international conference of ulama bu Istanbul ak conseil yu fatwa bu Europe ak research and fiqh council depuis lu ëpp fukki at weer wi kenn du ko xool fii ndax dañuy jëfandikoo xam-xam yu bees yi waaye lu bees rek mbokk yi dafay naqadee wan gis nga su fekkee ne woor ak xam-xam yu bees yi erreur la julli ak xam-xam yu bees yee ko gën a nekk erreur te gis nga amul kenn ci ñun kuy génn di xool ndax jant bi fenk na wala jant bi sonn pour julli timis wala shafaq fàddu na pour julli gee wala jant bi jeng na pour julli tisbaar wala yemoo ak sa takk ndeer pour julli tàkkusaan wala fajar xar nag xool ko ci asamaan si pour julli fajar montre yi la ñuy utiliser te gis ngeen montre yi bu muy xew bees am na boroom xam-xam yu mag yu gën def ay fatwa ne képp ku xool montre julli amuloo julli am na ñu dem sax ba yéeféerloo ñu koy def tey ñun ñëpp digéré nañ loolu su fekkee ne xool ci xam-xam yu bees yi mbokk yi julli nangu nañ ko lu tax duñu nangoo xool ci xam-xam yu bees yi pour mën a saxal ne weer wi feeñ na wala feeñul su fekkee ne weer wi ñuy saxal ne feeñ na ci xam-xam yu bees yi erreur la lu tax ñu nangoo kon def erreur juróomi yoon ci bés bi te nanguñ ko def benn yoon ci at bi su fekkee ne xam yu bees yi erreur la ndax ko wax mu ne déedéet dañ gis leen ko soogo a woor gis leen waaye gis leen ko ak nan pour pourtant loolu lañu wax ci julli gi lu tax nag nga nangoo xool ci montre ak ci sa eh, app rek mu ne la takkusaan jot na nga dem julli ji te yonentu sallallahu alayhi wasallam ne la balaa ngaa julli takkusaan na fekk ker lu nekk tolloog moom lu tax demuloo xool sa ker gi ndax tollu na ak yow lu tax montre bi wax la ko nga gëm ko donc yooyu mooy yi nga xam ne dafay jar di leeral lu tax it ñuy xaar toujours rek ba weeru koor jot ñuy soog a weerante ndax feeñ na walla feeñut lu tax duñu xool weer wi Euh, weer wu nekk bàyyi ba weeru koor yu ñëw ñu ne nangam boo waxee ñu ne waa Màkka wooru tey yónnee nañ ma message bu de yu toll ne ñëy di ma laaj di ma di ma di ma nangam waaye li ma leen di wax mooy fii ci North America ñun ñëpp mën na nañoo woor ndax ci xam-xam bu wér lañ ko teg jógee ci fiqh council of North America ay boromi xam-xam yu mag ak it seeni naataango yu nekk ci Europe ak Istanbul teg ko ci gis-gisu xam-xam ak gis-gisu fiq bu wér pour mën a euh, woor euh, tey xamoon nañ ne màkk duñ ko gis loolu duut lu bees xamoon nañ ne ñun ñoo koy njëkk a gis màkk loolu duut lu bees kon nag ñu bàyyi xel ci euh, loolu ñu ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp eh, di wax ne ñun fii ci suñ jàkk incha allah ñu ngi waajal tarawih eh, suba incha allah ci àllarba ji dinañ commencé koor eh, gi eh, d'après fiqhu council of North America eh, boo moytuwul it ñooy woor ñooy wooree ndoor ak waa Màkka ndax le quinze juin la ñuy woori fii incha allah ci États-Unis d'Amérique ak li ko li ko wër ñu ngi leen di ñaanal yàlla mu boole ñoo ki yéen lépp loo xam ne ni yiw la ci weeru koor mu sotti ko ci suñ kaw lépp loo xam ne musiba la mu musal ñu ci defaral ñu suñu zahir defaral suñu baatin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf alhamdulillah